télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. mi nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar santé animal fii ci Ladoum TV box numéro 37 box numéro 38 ci laa taxaw ci biir euh, foire internationale du Ladoum deuxième édition édition bi am ci 2023 bergerie Dabakh ñëwati ci mëninam ci exposition bu rafet lool macha allah di bergerie Dabakh bu ngeen ko déggee rek seen xel day daal di dem nag ci le révolutionnaire de l'élevage du Sénégal ci lu mujj ci ay doom yoo xamante ni kenn ku ci nekk ak melokaanam waaye doom yoo xamante ni ku ci amul tey day mel ni bokkuloo ci élevage moom la ñëpp daw di wuti ndax lan taar bu jégg dayoo melokaan bu jégg dayoo waaye li ñuy am ci mensuration beneen affaire la mu bokk nag ci doomam yooyu noonu bay biraan bay biraan ba tey moo nekk bergerie da baax waxuma di ko toj waaye nag di yëngal bu baax élevage Sénégal ñëwul dafa yeble Maison Blanche quatre mois donc la am di doomam moom la yebal mu ñëw ànd ak ay femelles nag d'exception d'habitude xam ngeen ni bergerie da baax ay yàq di euh, femelles d'exception ma nuyu la Jules bu baax a baax ziar la. waaw grand bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa caméraman yéen mi waa Ladoum TV di leen bu bëri di leen jox seen wàccuwaay. Gora Napoléon nuyu naa la ziar bu baax. Euh, grand champion maa ngi la ziar bu baax a baax di la taragal bu baax a baax di nuyu di leen ñaanal jàmm quoi. ngeen defati seen mënin exposition bu rafet bu taaru boo xamante ne toujours day def attraction fort macha allah indil ñu nag de femelles d' exception. Euh, mu bokk ci femelles yooyu ki mooy kan. waaw kii mooy première dame première dame doomu roi Basir la yaa ji doomu commandant Kosso. Hmm. moom moo jur Bayna jur preuve. Hmm. ah en même temps jur Mandela. Hmm. waaw kenn ki buur Saalum la ko amal kenn ki nu ñu ko waxee sax Mazor. kenn ki xam-xam waaw Masor doomu xam-xam la. Mhm. waaw mais en même temps Mandela doomu doomu kii la nu ñu koy waxee sax Baye Birane. Mhm. ak moom. macha allah preuve doomu Jogay bi moom moo ko jur. non preuve preuve doomu Buur Saalum la. doomu Buur Saalum am na am na doomu Buur Saalum. ok waaw am na doomu tamit euh, Baye Birane. Baye Birane waaw. macha allah mu nekk une euh, femelle d'exception fu mu bokk moom ci euh, côté. yaayam moom doomu la. Mhm. yaayam doomu commandant Kosso direct la yaay doomu commandant Kosso la. Mhm. mu toll ci ñaata porté kii actuellement war na am ay quatre portées di jëm cinq portées waaw. macha allah mu nekk une grande et belle femelle am naa keneen ku may seen xëjal ma ko mu ñëw xëjal ko Jules ki mooy kan. waaw kii mooy Yacine. Mhm. moom sëtu Assane 2 la. Mhm. waaw moom suñu grand Falilou Kayta moo ñu ko joxoon. Mhm. ko yàlla bu génne ko foofu mu ne. amiin amiin ba ñibbisiwaat si ay njaboot ndax élevage na mën na ko trop. waaw foofu mu ne moom du place su place su gor quoi. du place am du place wax dëgg yàlla bëgg nañ mu ñëwaat suñuy loxo bu baax a baax. incha allah moom moo ko joxoon. ba amoon nañ si doom moo ak Napoléon amoon nañ si mm. doom ak Napoléon ñu joxe ko mm. mooy kokki am na doom ak Baye Birane tamit taawam mm. taaw Baye Birane moom moo ko jur mooy kër yaa an actuellement moom lañ ko jox waa muy trophée ok waaw ba ba Baye Birane di jël pay à saladam fële moom moom moom moom la amaloon doom quoi waaw instant boobu noonu moom la amaloon doom quoi waaw macha allah ok ba tey mu bokk ci euh, femelle yooyu euh, kalamay seen xëcc ko mu ñëw Souley ki may kan waaw kii nu ngi koy sax euh, mooy caat caatu terminus waaw moom doomu terminus la quoi waaw yaay doomu Cheikh Anta mooy kéroot part quoi mhm. waaw moom doomu terminus la instant yi tawloogul nag waaw instant yi tam tawloogul quoi moom suñu grand Samir moo ko jox quoi waaw pour ñu liggéey si wax dëgg neex yàlla mhm. waaw di ko nuyuwaale passage moom grand bu baax la quoi mhm. jaajëf moom moo fi nekk actuellement Baye Birane moo ko croisé waaw xar gis ñëpp Baye Birane moo leen traversé quoi macha allah ku yor maal bu mel ni Baye Birane defe naa croisement bi moom kenn du ko ni waaye nag na ñëw moom Maison Blanche. nekk preuve. bu sûr ci li nga xamante ni moom mooy euh, lii Baye biran di def. waaw waaw kii nii rek moom daanaka misaal la. Mhm. waaw moom moom exception la moom kenn dootu ko présenté Maison Blanche actuellement monde de l'élevage ñëpp xam nañ ko wax dëgg neex yàlla. Mhm. kenn du ne Maison Blanche xam ko bu duñ toll nii moom yaay di doomu Darmanko yaay ji moo ok kii yaay moo jëloon deuxième salle d'armes papa ji jël pee. ok ñu boole kii juddu si quoi. te mhm. actuellement moo ngi si 4 mois ni ñu koy gisee nii. Mhm. waaw wérante bi bëri na nag koo mois la am. du ko gëm wax dëgg neex yàlla nag. Mhm. waaw mais moom tubaarkàlla macha allah. am nañ si yaakaar bu baax. Mm-hmm. waaw moom papa ji ñoo ko yaay ji ñoo ko juddul waaw macha bu yàlla tas yaakaar ci moom ñu lafal ko cat nag bu baax a baax a comme li nga wax nii gars yu bari gëmuñ ni quatre mois la am waaye ñi fekke juddoom ñu bari nag heureusement dañ fee waaw ñu bëri waaw ne tey say xam nañ xar mi yàgg nañ ñëw si bergerie bi mm-hmm. ñoom xar bi jomm leen ñan lay jomm tey say ñoo xam ne xamuñu xar bi gis ko mm-hmm. à cet nga wax ko la gëm waaw xam nga gars yi sax ñooy xuloo fii di xar bi am na âge bi gëmuñu ko werante bi fii ga am na ko mais ñu xam xar bi dëkk xar mi xam nañ xar bi te ñu xam bàyyi xar bi xam nañu xar bàyyi ji du ay caaxaan tamit mhm. waaw wax dëgg neex yàlla ak âge bu mu ñëwee sal dam papa ji mhm. ba mu ay moromam gars yi xam nañu xar bi du xaru wax dëgg neex yàlla macha allah waaw kii tamit doomu darmanko la moom mhm. ñun daanaka euh, mën naa ne peut-être ñii ñoo gën a fës si exposition mooy xaruñu indi nii mais daanaka lu mu dee du du du du jolof jolof kese lañ liggéey. du mhm. darmanko kese lañ liggéey du Napoléon kese du Baye Birane ndax yoroon tamit doomu ganaaraan. Mhm. benn doomu ganaaraan yoroon tamit doomu mhm. masoor bu góor. ñoo ñëpp tey tey traversé nañ si gétt gi liggéey fa liggéey bu doy waar. mais peut être xam naa maaluye yi maaluye yor yi ñoo gënoon ràññeeku ma mais ñooñu jaar nañ fa liggéey tamit. comme nu fa gars yi liggéeyee. waaw waaw loolu laa bëgg gars yi di si xel bu baax mais gars yi dañoo yaakaar ni ñun dañoo concentré wu si kii bi kese nu ñu ko waxee si Saalum bi kese kese en même temps mais dugal nañ Grand Rane. waaw dugal nañ Jogay. Mhm. dugal nañ tamit doom doom juddul nañ doomu Masor. nga xam ne yaay ji doomu Roi Basir la. Mhm. en même temps tamit moom tamit jaar na fa def résultat tamit. waa wax dëgg neex yàlla moom. macha allah vraiment mu nekk liggéey bu rafet lool euh, ñu daal di ci deuxième box bi. waa ok ñu daal ci benn box bi am na fa ay doomu ñaari doomu Darmanko yu fa nekk. Mhm. ñaari doomu Napoléon ak benn doomu xam-xam mooy doomu Major bu mu neex doom ji. moom ngi fii tamit mën nañ la xool après. ok waaw waaw kii nii mooy mooy mooy caatu Darmanko. waaw moom mooy yaay Maison Blanche quoi. ok moom Saladam moo fa jëloon moo fa jëloon deuxième si añal yi. waaw daanaka peeg deux lañ boole. waaw maison blanche juddu quoi. ok wax dëgg neex yàlla moom mooy caatu Darmanko. macha allah waaw moom la Darmanko moom la mujjee am si doom mhm. ok waaw moom mooy caatam quoi. Mhm. une très belle femelle xëjal bu ñuul bi ki mooy kan. waaw kii kii mooy Gawlo. Mhm. moom doomu doomu Napoléon la. ok yaay ji doomu Darmanko. waaw moom moo nekk nii mooy Gawlo waaw. mooy Gawlo mooy Gawlo waaw mais actuellement nii ñoom. ñoom croisé nañ leen quoi. Mhm. waaw ñoo ngi door a tëbu ni instant bi waaw. macha allah waaw keneen ku si moom mooy Mariama quoi. na ñëw Mariama na ñëw ñu xool. waaw kii kii mooy Mariama moom doom Napoléon la yaa yaa ji doomu doomu kii la nu ñu koy waxee sax doomu faydu la quoi moom mooy seex buur li buum bi. ok bu sëñ bi moom mooy seexam mhm. quoi. ok ñoom ñu actuellement ni sax ñoo ngi door a fokk nii quoi. ñoo ngi door a fokk waaw ñoo ngi ak. Euh, xool kee kee doomu Darmankool tamit. mooy Sali quoi. Salimata Dieng moo nekk noonu. ok waaw moom moom di nuyuwaale Ngañ Dieng au passage. Ngañ Dieng waaw moom soxnaam lañ ko tuddee quoi. waaw di ko nuyu bu baax. Mhm. ok Salimata Dieng moo nekk moom. mais moom actuellement Baye Birane na ko croisé quoi. ok waaw Baye Birane moom doomu Darmanko la. doomu Darmanko yaa ngi doomu booy Tukulóor la quoi. ok macha allah ñu ci ñaata porte moom. waaw instant yii moom benn porte la moon mais doom bi daanu ko ok waaw amoon doom bu am avenir amoon yaakaar ak Baye Birane. Mhm. waaw waaw. kan waaw moom doomu doomu xam-xam la suñ doomu masoor bu ñu yoroon. moom moo ko jur quoi. yaay ji doomu bël fii la. Hmm. yaay ji mooy tey leen tey leen bu ngañ jën. waaw moom moom moom mooy doomu masoor quoi. waaw masoor bu Balla Gadiaga macha allah waaw moom en tout cas vraiment ngeen def exposition bu rafet indi ay sujets yoo xamante ni sujets de qualité yi comme d'habitude euh, vraiment mu nekk euh, bergerie boo xamante ni euh, bergerie de référence la moom bergerie Dabakh nga fàttali ñu adresse bi ak numéro de téléphone bi. waaw bergerie Dabakh boobu daanaka mën naa ne bergerie boo xam ne ñun ci qualité la ñuy dox waa ku ñu xam-xam ne ci ay qualité la ñuy dox. mais pas quantité wax dëgg na yàlla ndax élevage élevage bëgg nañ tey tey saay saay bu ñu demee. saa bu ñu demee def attraction chaque fois bu ñu génn bëgg nañ def attraction mooy liggéey bu sévère loolu liggéey bu sévère moo la may. Mhm. waaw xar yi condition yi normal xool xam nga xar yi ñoo ngi si condition yi normal boo fu buggee Kër Massar lañ dëkkee waaw boo ñëwee pharmacie Bagnès moom foo ñu woowee wala rond point guy gi mhm. foo ñu woowee ñu jot numéro bay nekk ne 77 238 37 93 waaw boobu mooy numéro 77 218 56 95. waaw boobu mooy numéro bi quoi. ok di bu baax. Mhm. waaw di leen liggéey bi gën a jëm kanam sa kaw sa kanam waa seen Laadum TV. du nuyuwaale sama rakk bi Gora. Gora waaw moom daanaka caay bi duñ naan ñor la si. Mhm. waa wax dëgg neex yàlla si jàpp bu baax waaw da koy takk bu dul moom bàyyi caay bi daanu la. <laughs> est-ce que Gora sànni ci kàddu. Mm, grand bi ñu ngi lay di la ziar bu baax a mhm. baax. Euh, nuyu waa Laadum parce que waa yëpp. di ziar ñëpp nag di ziar sama mbokk yi nga xam ne. ñoo nekk si gétt di doxal. waaw di nuyu di nuyu Abdou Aziz Diop di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ak ay ñoom ma Diop ñun ñëpp ñu naan ñaanal jàmm Jean ñun ñëpp. kenn daal euh, ay seex ñun ñëpp daal fàttewuñu kenn daal soo bëggee dee dëgg fàttewuñu kenn di gën a ñaax sama mbokk ñi nga xam ne ñoo yor xar ñu mën a gën a góorgóorlu rek nañ ko góorgóorloo parce que boo yorul da nga muñ nangoo ñafe waaw man chaque jour bu toog loolu laay wax parce que nit ko yow soo yoroo ma yor boo meroo du ma saf waaye dafa fekk ma yor maa war muñ waaw loolu laay a ñaax sama mbokk ñoo xam ne ñoo yor xar yi wax dëgg yàlla ok waaw am na solo merci beaucoup jërëjëf jaajëf mooy télé bi bégal sama askan